xam nga dafay directeur si def di baal àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñëpp jàmm yàlla na yàgg yàlla na jàmm sax Sénégal jéggal naa ñëpp na ma ñëpp jéggal barki laa ilaaha illallaah am nañ jàmm. am leen jàmm jàmm la Balla Gaye woote buuju loo woote yow. ah mais li patron bi woote rek la ñu woote ah. ah. jàmm salaam yàlla may ñu ndam. ñu woor ci jàmm ñëpp woor am jàmm. yàlla may ñu fan si nee nañ ma wan la ne léegi yow wax ci weeru koor bi. waaw di bal ñëpp àq ah. di ñaanal ñëpp gudd fan wér gu yaram yoonu yokkute réussite totale képp koo xamante ne yaa ngi mbébét lu baax sa biir xor yàlla ko yàlla suñu mën defal ci barke alxuraan xol yi doon benn Sénégal doon benn murit Tiijaan xaar Laayeen nga xam ne ñoo bokk fu ñu jóge mm-hmm. te ñoo bokk fu ñu jëm waaw taw feex gars yi nee na ngay woor nag non ci laa dëkk nag bu sa bàyyi sa xor mburoog bër bi nga doon jox xar mi léegi xam nga ni joxoo yàlla mbake yonentu faal jaajëf jaajëf jaajëf jërëjëf yàlla suñu borom jërëjëf yàlla suñu borom